yoomal xiyaam du laal suuf Cheikh Ibra nee na ma continuer wala tajharu lahu bil xawli ka jahri baxdikum li baxdin bu leen waxantee teg yonent bi mel ni kuy wax ak seen morom ne man leen Serigne Touba amatul kon mbokk amatul xarit amatul doom bàjjan an tahbata ahmaalukum wa antum la tasurun gis nga danger bi nekk ci di wax ak kilifa mel ni kuy wax ak sa morom alxuraan nee ku ko def loo jëfoon ci lu baax day tiriku mel ni amoo dara ci yàlla moo tax yàlla fonk na nitam yi lool alquran ne inna allazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi am allazina amtaxanna qulubuhum li taqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim ñi nga xam ne buñ toogee ci kanamu yonente bi dañuy wàcc seen baat ñooñu de am nañu ngërëmal yàlla am nañu payeg suñu borom kon yoonu murit lépp jaamu yàlla la nii nuy toogee ci kanam sëriñ bi di lem suñuy tànk saa boo ko dee def ñu ngi lay bindal yiw te Cheikh ñu ko jàngal wàcc sa baat ñu digal la nga def ko ñu tere la nga bàyyi ko lépp mu ngi ci alxuraan nuyoo murit sax Cheikh Ibra ko fi àndi nuyoo nit nuyoo waale ko dara Cheikh Ibra ko fi andi te dinañ wax fi mu ko génne ci alxuraan xam nga lu tax ñu jëlee nii waxtaan bi dafa fekk ne am na ñu wër fii ci jotaay bi di nu dégg soo waxee ñu ne ah, Baay Faal da daje nañ fee démb yuuxoo yuuxu daanuy mbëkki tabax lu ne ñu def ko tudd ñu yàlla tudd ñu yonent bi alxuraan tudd ñu ko lool laa bëgg ñu xam ne Cheikh Ibrahima Fall mooy alxuraan te waxoon naa leen ci njëlbeen gi nee na aaya alxuraan bu ne jëf naa la tax mu jóg sëriñ Touba bi mu bindee Nahjul Qadaa'il Hajj ba noppi téere boobu ñu bari xam nañ ko sëñ Omar téere boobu muy jàngale yar ak teggin Serigne Cheikh Fall Baye góor nee na ma bi ko sëriñ Touba bindee ba noppi da koo teg ni Cheikh ne jaleñ mu ne ci suñu borom moo xara la yaa ngi nii yaa ngi nii yaay téere bii yëkkati ko jox ko ko bari na xasida yu jàng fii keroog ko Cheikh Ibra Fall dégg dafa tàggoog sa bopp ne a ah, sëñ Bamba tooñ na ma de fekk góor mu tëdd nga tànk ci dënnam jox nit ñi te tàgguwoo lii de ci sama dënn la ko tànk mën naa leen ci wax xasida yu bari waaye loolu jaru mu ne yu inna lazina yunaadunaka min waraai xujuraat aksaruhum laa yaqiluun yow rasulullah ñi lay fekk ci sa biir kees yi amuñu xel walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran bu ñu toogoon muñ ba nga génn mooy gën ci ñoom ñaari aayaangoog yoo xam ne Seexeru Faal nee na ci laa tibbee yoonu murit ci laa leen jàngale ak taalibe sëriñ Basiiru Mbàkke nga xam ne Cheikh Mouhamadul Basir Euh, Baye Fall Baye Fall yi ameel nañ ko njukkal lu mag ñépp ko ameel njukkal waaw sëñ Basiiru dimbali nañ ci Cheikh Ibra ndax bari na lu ñu gis ci mbind ci Cheikh Ibrahima Fall moom moo ko wax boo demee ci meneen baaxal xaddim fi sérati seexal xaddim mi ngi ciy nettali ni Cheikh Ibra Fall jébbaloo te loolu murit yëpp ko war a dégg ndax nu ne ñu ñu koy nettalee te ñëpp ko war a dégg te njébbal googu yoonu murit ci la nekk sëriñ Basiir daf ne xakka alayya muriduhu kabir a cheikh ibrahima fall wa huwa min firsaani niyati tilwa cheikh yi murit bu mag ba bi nga xam ne moo échantillon bi yéene ci topp sëriñ bu nekk nettali na ma ne ma nii la jébbaloo ci sëriñ Tuubaa ngeen déglu njëbbal gi bu baax ba bu ngeen fi jógee bu kenn neetee Cheikh Ibrahima ñii la jébbalu sëriñ Touba naa la jébbalu Serigne Touba waxe sëriñ Bassirou moom làmbi lislaam bu ci xasee taxaw beneen wax dootu ko mën a wecc ndax maa ngi fii ak benn bayit boo xam ne ak loo xam ne salaatu ala nabi boo xam ne Serigne Touba bind di ci wax ci Serigne Bassirou asalaatu ala nabi la de waaye wax na ne Serigne Bassirou de ak diw. kon naa bàyyi wet wax ndax ci waaw léegi naa naa dem ci. bu ko te bu ko bàyyi nag bu waaw jërëjëf waaw mu wax ne man yax di laa falaa mu di la loxo ku yàlla jubal dootoo dëng sirru boobu boole naa ko sëñ Basiiru moom lay duggee àjjana maa ngi fii ku sëñ Tuubaa bind fi ma man yax di laa falaa mu di la loxo léegi sëñ Basiiru nee na Cheikh Ibra na ma ne ma nee nee na sëñ Basiiru nee na الشيخ ابراهيم نينكو انا اول ما اخذت عليه الشيخ من الاهد والبيهه قلت له بما جيك داجك سا ويجورو خادم الرسول دي جيبلو تي موم لي لا كو كون كوفي جوغي نغا جاب لي خامنا موي لي وير بن لا وخاتي لنن داما كوني اني لم يخرجني من بيتي الى طلب شيخ موصل اجد من حاله نور حق تندفئ امامه ظلمات الخلق وتنجلي به آيات الحق شيخ رفاد رك جبل دغلو ني مو جبلو كودول سيرن توبا كولا واخ لي داغا جاخلي با دو خام لوكاي تون اني لم يخرجني من بيتي شيخ رفاد نينا سيرن توبا генوما سما كير نديك سما كير باي لودول اوت سيرن بو خامنا دا فا اغ تي كوكو توپ اغ تي يال تا اغ موي بروبليم سيرن سي Cheikh Ibra ne ma taxaw ci kanamu Serigne Touba ne ko Serigne bi may wut ku ko dafa àgg te ku ko topp àgg te Serigne boobu dinaa fekk ci leeram leerub dëgg leerub dëgg googu lu nit tilim tilim loo bon bon bu la suubee ci biir leeram gi sa tilim dootul feeñ Serigne boobu may seet yonent yi fi jëkkoon ci sunu maam Aadama ba rasulilah sallallahu alayhi wa dund gu gàtt lay dund waaye lu fi yonent jëfoon dana ko jëf. serigne Ahmed yaa ngi may dégg googu njëbbal doy na war de sëriñ boo ko wax bu dul serigne touba mu ne la xaw ma li ngay wax déglu déglu leen li mu wax daf ko ne sëriñ bi may seet lu nit tilim tilim tilim boo sóoboo ci biiram rek set wecc sëriñ bi may seet lu yonent defoon dana ko defaat ba ñëpp xam ne yonent yu jëkk yi dëgg lañu luy walliw defoon dana ko defaat ba ñëpp xam ne wàlliw yooyu amoon nañu Cheikh Ibra ne ko law lam ajid ahadan mi man hazihi sifa ila qabruhu la balagani sidqu niyati fii amali su fekkente ne wër naa àdduna ba mu daj gisuma kooku importance bu Cheikh Ibra nag mi ngi bëgg a génn nag ci waxam ji muy wax su ma wëree àdduna ba mu daj gisuma sëriñ boobu danaa dem wëri xabroom bàmmeelam dem ca bàmmeel ba di liggéeyal bàmmeel ba bala ñu waxante woon yëpp am yoonu murit taxaw waaye yéegi maa ngi leen di laaj ki ne bu ma fekkul woon sëriñ Tuubaa bàmmeelam rek dana ma doy ngir ma taxawal yoonu murit kookoy yoonu murit boo masaan ne sëñ Cheikh Fall Baye góor nee na ma boo masaan ne yoonu sëñ Bamba wi ci kanamu Cheikh ba dalay wax waaw doom sëñ Bamba bu dee yoon fu mu jëm nga ne teg mu ne sëñ Bamba ab la man Ibra Fall yoon wa ca jëm bu dee yoon fu mu jëm nga ne ko ah xawma ko de mu ne Seex Sëñ ba ab dëkk la man Ibra Fall yoon wa ci jëm waaw ba gànnaar ba gànnaar laa ay nit jóge nañ fa di laaj ci Sëriñ Tuubaa mbirum Seex Ibra am na naar boo xam ne ci shérifu gànnaar yi la bokk dafa ñëw ne Sëriñ Tuubaa ñaari yëf moo ma tax a jóg dama bind ab kaamil bëgg la ko jaay ci juróom-ñaar fukki dërëm la laaj ndax dégg naa am nga taalibe bu ñëw Ibra Fall moo ko waa këram duñu julli duñu woor te xanaa yow war nga seexlu ku dul julli du woor di yëkkati àllam di la jox nga di ko jëfandikoo dégg naa luñ la jox nga jël te yaa ngi ànd ak ñoom ak ni nga toll ci sharia ñaari laaj yooyu laa la bëgg a laaj juróom-ñaar fukk yi ak laajub Seex Ibra bi waaye Sëriñ Tubaa dane allama nii laahu alim mi mimmaa yashaa'u min ulum man sama xam-xam ak xam-xamu yàlla amul différence xaadimu rasul ne loo ne yàlla xam na ko rek xamal ne xam naa ko man lu ma soob rek xam waaw sëriñ Tuubaa moom du lu kenn xam nee na sëriñ bi daal ne ana ku fi xam kër Cheikh Ibra am ko ko ne man mu ne yóbbu lutal leen ma ko Cheikh Ibra ne na ma ko joxal juróom-ñaar fukk xoolal lool rek naka mu aksi ci serigne bi rek ci cheikh ibra rek cheikh ibra ne ko jàkk ne ah nar bu baax ak ngay def gis na sama serigne bu baax ba legi cheikh ibra ne nak ku ma sa gis serigne bamba suma ma sa beut yoon yi nga gis serigne touba day taxaw ci sa beut dama koy gis waaw cheikh rafal nee na sëñ tubaa ku ko teg bët du juk sa beut sa ndoxu beut daf ci taxaw ba faw koku mo moo kooku mooy de cheikh rafal nee na nee na ba mu ko gisee la ne naar bee di gis na sama sëriñ bu baax ba léegi lu sëñ Bamba wax ñu ne ko nee na nga joxal ko naar bi juróom-ñaar fukki dërëm mu ne sëñ yaaram mu ne faal mu ne ko lalal ma fee malaan te wutal ma montar tegal ma ko fee waxtu wu jox jot dinaa ko jox juróom-ñaar fukki dërëm fekk mu ba mu xam ne sëñ Bamba bokk la ku mës yónnee waaye bokk ku ñu mës a yónnee ci moom waxtu wu daanu rek sëñ yaaram ne ko faal waxtu wi daanu na mu ne jox leen ko juróom-ñaar fukk ñu di ko def ba mu nekk ab saabu naar bi ne ko maa ngi giñ ci yàlla ne gisuma ci téere yi ku la gën a gëm jànguma ko fenn musuma gis ku mel ni yow xanaa hmm. suñ sàllu gàmmu néew fi kamal lamp faal ba bi muridina yenn góor yàpp na jaaraama sayxi Ibra Faal kampum ganil bi Bamba taal leeral ga réew mi yaa kamaal yal na nga dolle bërëxël waaw waaw maam sayxi Ibra di kamal lamp faal babul muridina may sabdiga kumba faal jarama say xiibara faal lampum nga nil bi bamba taal leeral nga réew mi yaa kamal yal na nga dolli bërëxi xiblaya di kamal lamp faal babul muridina may sa digga kumba faal mas naa xibaar ak jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba mu la moom raasi ko jox ko suy ko moom la ilaha illallah man tere xiblaya di kamal lamp faal babin muridina genn mu sopp Seex Ibra Faal mat na xibaar ak jébbuloom bay wax na yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom rasi ko jox ko suñu waaw mam Seex Ibra yaa di kamal lamp faal babin muridina may sa digg Kumba Faal tegtal ko wa ab murit de aw baraw pexem marit ba am ngërëm bari murit te dootu reet du seex la ilaha illallah di kamal lamb faal babil muridina ku sopp Seex Ibra Faal